faslun zakatul fitri azakay dog sadaqatul fitri azakay dog wala sarafu dog wala azakay wóoru koor nee na waajibatun war la farataha faradaha farataal na ko rasulullahi ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam tajibu dana war bi awwali laylatin ci njël beenu guddi aw bi awwali laylati aydil fitri ci njël beenu guddi feetu dog mooy korite ala ahadil qawlayni ci lenn ci ñaari wax yi almashhurayni yu ñu siiwee yi mooy benn ci ñaari wax wal aaxaru beneen bi nee na tajibu day war bi tuluuci fajri yawmil aydi ci fenku fajaru ko bisu korite bi wa faidatul xilaafi nee na njëriñu wuute gii léegi féer bi mu war a war njëriñ bi fadharu day feeñ fii man ca ka nga xamante ni maata dee na aw wulida wala mu juddu aw aslama wala mu tuub aw naxi daalika wala lu mu bëgg loolu wala ñu takk ci sëy xam ne yow rek war wala seen baabi baabi la woon war ak en tout cas mbiru waaw waaw sag yooyu daal aw naxi daalika yooyu gis rek war nga xalaat benn ka benn ka aw wala aw xayri saa bu defee ci aw naxi daalika aw xayri yooyu aw naxi yooyu xalaat ko une minute benn ka da lay tànnee tam léegi ñu ne am nañu ah dé dé dé détaillé fii dara ci kii bi. eh xam camarade yéen zama zama ko jaa awtalaq tombe tombe na tombe na de aw muusirin yaasir koo xamante ne amul woon. bañ war ko jox asaka. par ci guddi gi yaa koy fay boru deux cent mille. dèjà kenn ku daal mooy génn asaka yi ak yu mel noonu. yow mi sori bari na maa ngi leen wax fii nii comme si sama nouvelle bi ah. su ñëwee mu ne ko aajo aajowoo ma ko kii yaru demi kii yaru demi saako te dala ko indil ne asaka mbirum koor dala kaa yéene ay sëñ nga xamal ko ne aajowoo ma ko waaye way ñàkk laa woon waaye yàlla dimbali na ma sama situation changé na aajowoo ma ko wala kay lekk nga àll jàmbur wala nga jël ko soo ko jëlee nga nga nga nga jox ko kenn ko sol. ni ko ndaw soo xam ne fekk nañ ko lañ takk lu ko ñàkk koo xamante ne nii am na wala ko am koo xam ne ñàkk na diggante bi waaw léegi contraire bi léegi jël contraire bi pour gën a pare koo xamante ne amoon na amoon na amoon na amoon na amoon na far heure boobu ñoom moom ñu xamal ko ne amatoon dara ñàkk na ñàkk na quoi façon ñàkk nag moom ñu ne lay dikkee yàlla ñu si yàlla musal waaw léegi nag diggante boobu noonu na signalé xamal ni yittewoo naa asaka boobu koor gars yi def boobu gën a tedd bay na xaajal waxtu yi diggante ñaari waxtu yi la am parce que léegi yow buñ la mayee jabar tey suba di korite yaa koy génne asakay mbuuru koor buñ la mayee jabar si bisu weeru si bisu korite gi asakay mbuuru koor bàyyam la waroon warul la yor léegi nag ñu mayee jabar comme comme comme benn borom xam-xam bi def ni à partir de timis beneen borom xam-xam bi ne à partir de fajar léegi kuñ may léegi nag diggante ñaari waxtu yi léegi lañ la may bokkul si bokkul si xam nga moom laa ni problème bi foofu lay feeñee foofu lay intéressant la faman wulida ku judd na baadal guru bi ginnaaw fenku fajar ginnaaw fen ginnaaw sow jant bi timis neen laa taj bu duy war azakatu azaka mburu koor anhu ci moom anel awal alal awal ci wax bi ñëpp yi comme azaka yi war na ba pare mu door a judd après timis bu judd ku njëkk ki nee na ko kenn da ko génne azaka waaye war a judd dana war ala sabi ku ñaareel ki nee na non bi muy judd boobu azaka mburu koor jotagul ndax fajar la ñuy commencé donc da nga koy génneel dafa li gën a wóor mooy gën a yàlla na la wax wa ala thani wa ala thani ah wa man maata ku dee na fii dalika ci boobu ci dalika wax ci boobu waxtu ala wax ci sa bàyyi la màgget na am na fi cent trente deux ans ah léegi gaañu na ay vingt deux heures ay vingt deux heures ku njëkk nee na bi asaka mbuuru koor di jot fekk na ko ni mu dund ok jël na ku saane ku ñaane ko nee na dee na ba pare ba ñu ko asaka ñu door a war dee na ba pare vingt-deux heures de tey fajar la xam nga ku ñaane kon nee na warul dafa la gën a wóor génneel ko fa tajibu dana war alal awali bu nusaani wa ala dalika baqiyatul amsila li def ci misaal yépp loolu la mooy xoolal rek ba nga sukkandikoo bu dee ci bii nga ànd nga def ni ku mu fekk koo xamante ne ni azaka bi bi muy wax fekk na maa la war a génneel da ngaa dee da ngaa dund juddu dañ kuñ fate la yàlla bu mu am ak wala kuñ takk la yooyu yëpp ku am la yooyu yëpp nee na ñu- kii wala xoolal cas bi nga nekk nga travail suivant cas bu noonu waaye gisu dagan na nag ixraaj waxaa génne ko qabla yawmil aydi lu njëkk bi su eid bi bi ya- bil yawmi ayni ñaari fan wa salaatati wala ñetti fan xam nga bu la neexee te génne ko avant mooy li ñu doon sànq ci weer la fajar lay war moom day war mais avant fajar dañ nga def mooy juróom benn xaajal bi ñu defee affaire yi à partir de bu waaye danga ma ko ñàkk ci biir wala tasfutu du rot nag bi mu bëyi zamaniha ci wéyub jamono yi korite gi jàll na rek ka nga yaakaar ne asaka muy woon comme aw ma ko woon joxe woon ko jamono jooja léegi waratuma déedéet dalay war ba tey dalay war ba tey bu korite gi jàllee saa yoo ko amee da nga koy joxe nekk ci la noonu ay ay sa koor dañ koy aj bërëb sàngam ak sànq joxe ko dañ ko nangu yooyu noonu yooyu noonu bu ko fiq du ko contrôlé xaw ma waxee ñan la mais fiq moom loolu noonu nekkul ci loolu fiq mooy lii war na lii warul war nga ko def kañ nga ko war a def koo ko war a yooyu day toppatoo sa defee ba pare sa devoir sa composition correction bi te nekk est-ce que accord dañuy benn marge après après après ci wuuri xoolal fii ba déwén même bu correcte déwén ñëwee diggante yi amul ko woon correcte bi bi ba correcte déwén fii ba ñetti at da ngay aussi du la du du la wàcc ci ba nekk at quoi Mhm.
léegi ñu ne kon bu waa comme ni ko gars yi naan ay bu weesoo jiw ji di sarax la non lo- muurum quoi ah mooy loolu mooy am na kay mooy wa yow war na la loolu hadis bi yàlla moo ko wax mooy avec muur koor ñaari masala yi bokkul de kii daf ko amul ci jamono ji ci bisu koor gi amu ko deux jours après la ko am supposons ki fayee ko deux jours après lay fayee ko waaw amul deux jours après mu fayee ko dañ joxe avec muur koor kii nag da kaa am mu am ko war kaa joxe téye ko téye ko téye ko téye ko ba bisu koor gi jàll wala bañ ci suba ci mu bàyyi bañ nañ jumaa bi mu door ko génnee yonent ne ko li la sant da nga kaa baax def li la neex donc martabay martabay avec muur ko duñ la ko yóbbu martabay ko sarax lañ leen ko yemale ñu ngi leen tabaski ñoom la am nga xar am nga yàpp waaye amul rek mais léegi kon ke- keneen ki nga xam ne moom amul moom saa yu amee moom rek fay moom bien sûr la moom lay am moom moom pour wala tadd faaw aw wala tudd faaw yooyu su ko jiñ joxe illa li faqirin ndara ñel ku aajowoo xorrin kuy gor muslimin kuy jullit nekk fi naan ay ibnu sabil ak ay xaarinu yooyu ñu amel ala ñu ngi bokk du ñoom parce que mbir ko ñu ñàkk ni ñoo ko moom duñ ko def jaam duñ ko def yëfar xorrin gor muslimin kuy jullit wéy moom lu muy toll parce que mbir ko nee na saawoon saa lay doon xamu ko nii saa waaye xam naa dina dina ko dina ko fi indi min xaalibi quuti ahlil baladi ci li gën a not ci dund waa dëkk ba ñun ceeb la ñuy dundee kon génnee ceeb la asaka la ñu def wala dugub ñaar xam nga ñaar yëpp xam nañ ci tolloo ñu génnee dugub kon dugub ñaar bu la si neex def aayu ah, du du- du aay nag nga xam saa ñaata la ci xaalis xaal saa ci dugub ñaata saa wala wala wala ceeb ñaata xaalis nga génnee xaalis la am na si ñoo xam ne loolu mooy ndigal la alal muslimi jullit la war al xodi kuy gor al mukallaf yi koo xamante ni mukallaf eh, abo al musiri ku womal bu nee mukallaf la war mooy signifié ku nekkul mukallaf warul la waaye ki warul sa dund la war kilifa di diine ji ku nekkul mukallaf ku ne am nga kilifa jigéen ju ne am nga kilifa noo mënti toll loo mën am daraja loo mënti am alal am nga kilifa Eh, jaam bu ne am nga kilifa ma oui Hmm.
su boobaa ñoom nga am yenn at yi ñuy wax Hmm?
nga am yenn at yi par exemple nga am Jigéen.
vingt-deux ans, vingt-deux ans, bu góor bi Hmm, hmm.
maanaam amoo jëkkër amoo dara mais am nga xaalis te mu ngi sa bopp moom loolu nga war a génne waale sa papa ak sa yaay ak say rakk ak yëpp am nga xaalis kay waaw mais est-ce que l'islam maanaam comme ni tubaab naan ay boo amee âge yi nii xam comme ça tubaab xam boo amee yenn âge yi dañ naan fii nga quoi maanaam yow léegi c'est c'est c'est majeur donc yoral sa yor sa propre vie mais léegi est-ce que islam maanaam bu fekkee yow jigéen nga amoo jëkkër ah est-ce que yow foofu noonu mën nga am leneen di la waaw waxoon na ko léegi mu ne jigéen noo mën a toll dina am kilifa waaw kon instant bi jàppal na boo boo nekkee bu fekkee ne avant nga am avant nga am jëkkër la sa kilifteef bu ñu séwee ji bu amee jëkkër transfert de pouvoir day am kilifteef bi ñu si jëkkër léegi kon instant bi mën na fi nekk durée boo xam ne amoo fi kilifa jigéen mën na sa dund yëpp mën na fi nekk durée boo xam ne amoo fi kilifa
même buy sa doom hmm? sa wéyjur buy dund ci la may waaw hmm?
sa papa bu ndaw wala sa nijaay bu dundul bu dundul bu ñuy bu ñuy wër ku la gën a jege muy ñàkk muy ñàkk muy ñàkk muy ñàkk day mujj dellu si Kaadi.
kaadi yi dëkk bi wala Kaadi dëkk imaam bi.
bi loolu imaam bi ak yooyu noonu mais foofu mu am kilifa am bu ma seetlu rek amoo kilifa boppam ségrégation wul de muy islam Ség- ségrégation de genre kon kon daal maanaam daal comme ça maanaam te jaral na bopp bu la neex yow góor la boo amee yenn at yi bu la neex nga dem lu la boo ma seetlu rek ah boo ma seetlu sa dund papa ak sa yaay yow la war bul yaakaar ne fii nii le fait que ngay xëy seen kër di sa papa di wàcc di ngeen dépense ngay lekk si ceeb bi tax noonu la war a demee de warul demee noonu yow yaa war a assuré sa dund papa sa papa lu mu am su waay su su fa- su yooyu mi ngi liggéey lu mu fayeeku def poosam yow nga koy dundal yàlla bu am cinq doom yu góor nag ñetti ponkal kenn ku nekk da neex si pa neex la paa bi de malheureusement ñun dañ ñàkk doom kenn ponkal war a jox paa bi des fois digg waaye di ko laaj yi paa bi duñ jox jërë ngeen jëf seen laaj am na solo yàlla na yàlla fay malheureusement amu leen tontu yi al mukallafi ah al musiri ku woomal war na am nafsihi ci boppam moom war a génneel boppam waaye waa am man ak képp koo xamante ni talzamuhu war na ko nafaqatuhu dundam minal muslimina ci jullit nag xaasatan plus particulièrement bil xalaabati jege ñaale fa lay tàmbale papa doomam ay ay doomam xam nga alkal awlaad da ci doom ya wa biir riqi ak bu dee jaam dafa am ko am ko am jaam wa biir riqi ak waa kan abid ñu ngi ci jaam wa bi xayrihima ak ñu dul ñooñu ka zawjati ñu ngi soxna wa xaadimiha ak ñu koy liggéeyal ak sa sa soxna ci ku ñu koy liggéeyal wa in kaana doon nekk na maliyatan di ko am maliyatan di ko am ma maliyatan di ko am quoi soxna si même bu amee alal yu bëri ko dun- dundam yow la war jaam bi ay doom affaire yooyu kuñ la denc yooyu yëpp nga joxe nga joxe ñaari wala kenn wa qawluna wax suma alal muslim yi war na jullit yii nee na ixtiraazun ak wattandiku la vex minal kaafiri warul yëf war raqiib warul jaam wal mu'siri warul ku ñàkk fa innaha naka luy naka moom azaka nguuru ko laa tajibu du war alayhim ci ñii wal mu'siri ku ñàkk ci huwa mu alladi mooy ki nga xamante ne laa yafdulu déet ndefi dafa di ko ñeer laa yafdulu du def dafa an quuti yawmihi ci dund bi sam saawum su dund dund bi sam du ko xoolee du def lu ma saa ñu ko ci ñàkk na bu dee ëpp na nag du du wala ji te amul man ñu sallifu ku ko lewal iyaahu waxee ci lu mu afrique lu koy ko ku ko lewal lu mu joxe afrique mu ko yaa ngi yàlla dafa dëgër ko dañuy toog fii, dañuy toog. ba pare mais si ngir Malick dañu bañ ñu génne